deuxième demi-finale baa ngi noonu diggante Toubacouta Buuru Saalum ak ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Diofior wala Ibou Ndiaye Obali Toubacouta woon ñu gannaaw Ibou Ndiaye moom leen jàkkaar lool nee naa la maa ngi bëggee képp kuy bëggee Zilo TV waaye rawatina waa 100 pour cent Zilo TV bi maa ngi leen di siyaar lay la ay ko daan na ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Diofior laa ilaha illallah Boubacar <laughs> mu ne jeex na ma sar laa ilaha illallah <laughs>